Chers téléspectateurs, il est exactement 14h passé de 52 minutes. Très heureux de vous retrouver sur les antennes de Sénégal 5 TV. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue à tous et à tous. C'est une émission qui est comme dit midi faut que nous sommes les téléspectateurs du lundi au samedi à partir de 13h30. Bienvenue, c'est le dernier numéro de la semaine. Ramenez l'accession de l'actualité de la réunion si nous sommes yato. Alors, le Sénégal de la d'aller beaucoup ni afin de ramener que DGE, Direction Générale des élections, Manikon, euh, Guinabanda, Djoré, qui nous ramené dit Ousmane Songo, tribunal de grande instance bu Ziguinchor man ni kon nag war nañ daal di war ni avocat ak mandataire bi secrétaire dem djeli euh, ko de bernage bi nga tam Tam DGE moo euh, ne di si li na xam nekk mu jotaay wi si mu tam euh, suñu dina di bokk mbokki xelu téléspectateurs yi lu ki Ousmane Sonko Batay lu di aussi li na xam Modi moo Pastef communiqué bi nga tam def allant dans ki na xam modi na

ki nga xam nekk moo Ousmane Sonko jàppale les avocats de l'État euh, dépose ne li nga xam nekk Modi recours fustigeant li nga xam nekk moo euh, ndam li nga xam ni Sonko am devant li nga xam grande essence bu Ziguinchor loolu lépp dina si daal dikk fii jours leen di am pour ñu daal di war a mën examiner boobu de li nga xam alors ginnaaw rek ba ay tuuma jóge woon dem si ki nga xam nekk moo di juge Sabassy Faye ni dafa bok kenn ki nga xamni ni itam dafa daal di faree euh, mairie bu Ousmane Sonko ci waanu ko Ziguinchor ma nak bob batay boobu ba tey am na ñoo itam ña di weddi du ñak itam ni si daal di si nu euh, ji nak assemblée nationale amane li nga xam que modi euh, session unique 2023 2024 ma tay ji amane li nga xam que moo di tijjiteef bi ne si daal di si nu par rapport ak walu wunu mel jeu exactement par rapport ak avenir bu li nga xam que modi di kan wi su avenir bu yeewee kan nak dañuy wax li nga

alors euh, Gallo nous lay vous euh, encore une fois alors nous dadi, dit, gis ni dit, DGE amul droit Ousmane Sonko li na nous que fiche de vous outrepasser ses prérogatives exactement alors tout d'abord nous gi na que Sonko am na ko DGE premier dafa am loo xamante ne tey jii dafa am. Hmm. mooy justice bi dafa indépendant bi ñi ko doon wax ñi ne musul indépendant. Hmm. mooy dafa wane ni képp koo xamante ni nekk nga juge wala nekk nga ci benn euh, juridiction ñu jox la say prérogatives am nga droit juger non sentir loolu moom mooy sa interprétation ndax tey jii. su dee Ousmane Sonko dañoo ñëwoon du bokk ci parrainage yi dañ koo ràjjee. Mm. dafa amoon juridiction bu ko génnee. Mm. mais tey jii ay avocats suñ demee dugal recours recours lañ dugal au niveau de du tribunal d'instance de Ziguinchor. parce que mu foofu mooy lieu de vote am. pour attaquer décision bi nga xamante ni moom lañ jëla mm. le saba si fay wala mu nekkoon ma demb wala mu nekk Massamba. pour man. lien bi nga xamante ne moom la ñuy wax rek mooy am na lien de parenté am na ku jege Ousmane Sonko ndax bu leen fàtte ni am nay temps bu ñu doon jugé Ousmane Sonko ñu ni amoon na kenn ko xamante ni bu ñu constitué ci chambre bi dafa jege woon Victorine Ndeye dañ ko war a changé loolu ay paramètres la yoo xamante ni c'est tout totalement technique mais man li ma ciy jàngat mu nekk si fay mu nekk x y mooy juge dossier bi nga xamante ne moo toog ci taabal yi ñu jox moom mooy interprété selon li nga xamante ne moo ko doy ak li mu jàng ak prérogative ak indépendance ak mu ni man lii laa atte donc da jàpp ni loolu ay euh, débat débat étage la ñu naan Euh, Sonko euh, euh, ki ka war a àtte dafa bokk ak ay lien de parenté kenn ki na xam ni itam mi ngi si mairie ba parce que suñuy dem tuuti si ginnaaw si kaw Mame Mbaye Niang bi aussi déggoon nañ que nii àtte ba Sonko ka ka àtte dafa bokk aussi fa nga xam ni itam mooy zaanu ko Pastef malgré cela atte bi am euh, euh, favorable si mom tay ñu daal di gisaat tey même scénario bi ñom est-ce que gis ñun que ni c'était ben défaite bi na xamni ni mo moo doon sen kaw parce que Maître Clédor waxoon nañ que ni ñoom dañoo am ay argument yu solide ay argument yu dis yo xamni tam su suñ ko tegee si bi amana ni den am dam par rapport ak walu wul mel exactement xam nga dafa am loo la part des choses xam nga hmm. Maître Clédor avocat la hmm. dëgg day fexe clientam génn ci situation bi. mën nga sukkandiku ci ay boppam comme benn. Hmm. beneen bi ci toog mooy dañoo ni juridiction yi ñiy àtte loolu ay technique la mooy kii war jege àllu kii wala kii war a ak kii wala kii bu toogee ak nii dafay partiel wala du mën a àtte du mën a tëddee njaaxanaay. xam nga hmm. loolu yëpp ay technique la. Hmm. mais ba léegi dafa weesu ak ki nga xamante ni dafa toog ci juridiction bi mu nekk magistrat. mu nekk juge de siège comme procureur wala lu mënti doon toog hmm. am indépendance jàngam teg ko foofu hmm. mu war a interpréter li nga xamante ne moom lañ koy tegal hmm. mooy mooy li ma la wax sànq muy saba si fay muy x muy y képp ku fa toogoon jàpp ni Sonko lii ñu ko def nii dañ koo xaj ay droit am dañ koo war a remettre moom loolu la war a appliquer loolu nag bu ko appliquer ba pare ça dépend de la personne parce que moo tax moo am tribunal d'instance cour d'appel cour suprême Euh, muy lépp loolu moom mooy waral soo ñu àttee fii neexu la nga dem tey jii lan moo am mooy Sonko dañ ko ni woon génnee nañ ko ci fiche électorale bi ñoom ñu dem attaqué décision boobu pour def recours. Hmm. tribunal tribunal d'instance bu Ziguinchor jëlaat dëgg jox ko kon dañuy wax ni marché nii lañ ñii dañoo noonu dañ koy génne ñii ne dañ koy delloo. léegi nag dafa am attaqué bu mag boo xamante ne mooy cassation mooy cour suprême. bu mag bi. Hmm. Hmm. bi nga xamante ne moom mooy définitive bi. Hmm. ndax journaliste état bi déglu naa leen euh, avocat wu état bi déglu naa leen mais ñoom li wax tamit c'est clair mooy juge bu dee dafa àtte dañ ciy tënku bu dee ni mu àttee neexu leen dañ ci koy d'accord su dee verdict bi mu joxee tamit neexu leen am nañ droit xooli ko feneen mais duñu attaquer la personne. Hmm. pour man Sabassy Faye. mais booba tey jàpp nañu ñu koy attaqué mais booba tey attaqué na xam ni itam ñu koy attaqué Gallo ba union des magistrats du hmm. Sénégal def si benn communiqué di ko ñaawlu bu baax baax a baax euh, les avocats de l'État attaque bi na xam ne tam ñu koy attaqué li nga xam nekk moo di Sabassy Faye euh, ñu bëri jàpp ni il a juste dit le droit mais quand même ay attaque mi ngi dem allant dans ce sens. non xam nga lu tax attaque yooyu warul am sax hmm. warul am parce que UMS euh, def na ci communiqué hmm. xam nga lu tax warul am hmm. saa à dire avocat yi teguñu saba si fay foofu pour mu liggéey man ci moo xam-xam bu gàtt mooy saba si fay magistrat la boo xam te dafa toog foofu dossier Ousmane Sonko fekk ko fa ak beneen dossier fekk ko fa dafa war a toog di liggéey léegi nag bu dossier Ousmane Sonko ñëwee fekk ko fa mu war a toog juge de siège pour atte loolu c'est-à-dire su dee atte nu mu mënti atte ñoom am nañ droit def recours mais la personne kenn amul droit attaqué ko ci ni mu ko bëggee. ok comprendre nga. ok donc tax bu ëllëgee bu beneen beneen verdict amee ñu ni ñoom it kon dañoo xool leneen arrangé ñoom ñu def ko. parce que man sama gis-gis loolu mm. Mm. mais en personne tamit dafay créer équilibre. Mm. équilibre bu lan. moo xamante ne tey jii yii nee nañ Ousmane Sonko DGE ñoom dañoo noonu dañ ko ko jox ñu ni ñoom ay fonctionnaire de l'état lañ amuñu droit tribunal instance bu Ziguinchor hmm. génnee beneen euh, verdict léegi nag ñoom comme bu dee dañoo am recours boo xamante ne recours boobu permettre na leen ñu dem cour cour suprême léegi nag cour suprême su dee dafa confirmer li tribunal wax ñu soog a jox parrainage su dee comme moom suprême moom cassation ñu sommes a xam la réalité mais est-ce que vous fu mu toll nii nag Gallo fu mu euh, uh-huh. Sonko jox ki justement peut-être Cour suprême euh, ak li nga xam que DGE euh, tout d'abord décision de la justice moy primé si décision li nga xam administrative donc est se que Ousmane Sonko wala ñu ko daal di war a jox nak li nga xam ne moo di de parrainage fa nga xam ne itam mooy en attendant cassation xool lan lay daal décider allant dans ce sens.